Euh, mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ak wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróom-ñeenti waxtu ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Euh, li ciy gën a fës euh, bokk na ci kuréel googu di M24 tey jii nag ne ñu ngir fexe njiit réew mi génne eh, xelam ci wàllu ñetteelu mandat bi dinañu daal di def ab pression mouvement bi nga xam ne dafa ëmb ñu bëri euh, ci force vive de la nation daal nañ rek daje ne ñu dialogue bi moom xalaatuñu ca dem la ko waral ak ko sooxee tey jii amal nañ ci daje taskatu xibaar yi dinañ ciy jukkee ak Adja Mariama Jara ci ndorteelu xibaar yi eh, lay doon dil bi nga xam ne diggante PDS ak président Macky Sall te Aminata Touré fi nekkoon fi jëwriñ ju jëkk daal na koy eh, yëkkati mbir moomu nag dikkee na ko ay kàddu yu ñaaw ak i menace moom loolu la xam ne ci ab communiqué bu mu daal di nag génnee nee ñu nag mu cay joxar bi baaraam mooy njiitu réew mi dinañ ci daal di jukki itam ba tey eh, ci biir xibaar yi lay doon conseil des ministères yi ñu daal di koy yu bëri njiitu réew mi daal na koy nag eh, laal ngir wax naka la ñuy fexe ba teg beneen doxalin boo xam ne dialogue social lay doon ministère yëpp daal na leen cee rek jox digal wax na itam jëme rek ci li nga xam ne mooy plateforme réforme bu yees mi ñu xam ne moom la automobiliste yi di def coppeeku mën cee daal nag am waaye itam tàggat leen dinañ ci àddu ak sax nomination ma ci def Khadim Diop euh, nekkoon fi jëwriñ moom ni président CETUD lañ ko daal di nag def Thierno Birahim moo aaw moo daal di des nekk directeur général ba euh, ki nga xam ne nag mooy Amadou Abdou Sy moom la ñuy jox bopp ARM dinañ ci daal di jukki ci biir xibaar yi euh, lay doon dinañu wax itam ci bésug tey ñu doon màggal nag lii di liberté de la presse jëme ci taskatu xibaar yi xayma bañ ca def Sénégal daal dettu gannaaw bu rëy la ca daal nag am tey jii sax ci loolee kii di Babacar Touré nekk taskatu xibaar te ñu ko doon déglu fan yi yëpp la mu mujjee am mooy ñu daal di koy bàyyi waaye itam euh, takkal ko li nga xam ne nag mooy lam boobu di contrôle nag judiciaire dinañ ci daal di nag jukki ci kanam tuuti lay doon dina ñu wax itam desandi ci mbir moomee ndax ba diwaanu Gambie ñu ngi koy daal di nag waxtaanee ab session ordinaire ba fa daal di amal gis nañu wàllu ak xiyeleef moom euh, Sénégal daf ciy daal di dettu gannaaw moom ak M24 boobu ak ndaje eh, bañ ca daal di amal coowal suuf daal di tàbbi ca Morolan foofe eh, barab ba nga xam ne nag Fandé nee ñu dañ koo bëgg rek jël war a toll ci juróom fukk ak benn ci ay eh, hectare moom la rek askan wu Morolan daal di nag lànk coow li mel ni tulleeg màlle ca diwaan ba dinañ ci daal di jukki toftal ci yeneen xibaar laataa ñu ubbi antenne bi ci wax sa xalaat xibaar yi daal di buur Assane Thioune moo fare ci sottandikukaay bi faram-fànce gi nees kis lay doon Adama Ndione ci kàddu gi ñu dooree ko nag euh, pexe yi nga xam ne wala doxalin euh, kuréel googu di M24 daal na koy sumb tey jii ci ndajeem ak taskatu xibaar yi ñeen daal ngir fexe ba njiit réew mi dootul xalaatati sax lu aju ci euh, présenté woowat ñetteelu yoon mouvement des forces vives de la nation F24 ñu ngi woote ab ndaje bu mag nee ñu fukki fan ak ñaar weeru mai 2023 tey jii ci ngoon nag jot nañu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir àddu ci wàllu liberté nga xam ne Sénégal waa itam pexe politique yi nga xam ne amal nañ ko bañañ ca teg loxo leeral yeeg Mariama Diarra boobu ndaje nag bu force vive de la nation dëgmal nag si fukk ak ñaareelu bés ci weeru mai fële nag ca place de l'obélisque li ko tax a jóg nag mooy fexe ba kii di njiitu réew mi Macky Sall daal di bañ a bokk nag ci jongante yi élection wu 2024 teg si nag ñu teggi loxo képp ku yoon jàpp ci wàllum politique. conférence sabab mooy mobilisation bu mag bi nga xamante ni peuple vendredi 12 mai 2023 fële ci pour jóg taxaw ne ni troisième candidature du fi amee di woo citoyen sénégalais yépp Aminata Touré nag ngi si njiitu réew mi Macky Sall mu daal di li ñuy wax liberté démocratique bi nga xam ne moo tax tey ji mu nekk njiitu réew su fekkoon ne am Abdoulaye Wade da doon arrêté journaliste yi nga xam ne si ñoo di liggéey ci jamono jooju ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay collaborateurs yu Macky kon tey fi mu egsi du fi egsi ñu di ko ñaan nag mu sàmmwante liberté démocratique boobu nga xam ni si moom moo amoon ba tax mu nekk président. ba tey rek ci lu jëmm ci wàllum liberté de la presse ki di Bougane nag daal ne ñaan njiitu réew mi mu xoolaat taxawaayam ci lu jëm ci taskatu xibaar yi. woo encore une fois le président Macky Sall à plus de sérénité, à plus de, retenue par rapport aux journalistes pour tout ce qui est lié à l'exercice de leur fonction et de leur métier. ci bés bi nag nga xam ne daal dinañ koy jagleel fanweerim édition wu journée mondiale de la liberté de la presse joytu yeeg ñaxtu yi daal di ñuy dikkee fu nekk jëmee ca Macky Sall. Euh, ci loolee sax euh, dil bi dox diggam moom président Macky Sall ak waa PDS te Aminata Touré daal di koy euh, sulli bu yàggul mbir moomu nag dikkeel na ko ay xeetu menace ak kàddu yu ñaaw ba tax mu génne ab bataaxal moom jëwriñ ju njëkk ba woon nee na daal kii responsable ku nekk ci ginnaaw lu nu mel du kenn ku dul njiitu réew mi ak ay paliem yooyu di di waa PDS jàpp na nag lépp loo xam ne jéem nañu ko ki jéem koo faagaagal wala gaañ ñooñ ñooy responsable bi moom Aminata Touré di wàllu euh, ñi nga xam ne démocratie yi teel na leen lool ñu daal di ni mobiliser bu ko defee nag constitution bu Sénégal ñu daal di koy nag aar ak euh, démocratie ci loolu njiit réew moom doon amal ndaje ak conseil de ministre tey jii njiit réew mi daal nay euh, wax jëme li ñu war a samp ci ay comité dialogue social jàppale ne secteur bu ne war na fa daal di nag am ci ministère bu nekk itam waaye itam ñu daal di tabax li nga xam ne mooy beneen doxalin boo xam ne daal dina am ci mim ci wàllu koom nag euh, social ba tax njiit réew mi nag fii nekk fii ak njeextalu weeru sulet daal bëgg na loolu mën a rek jàppandil ci li jëm ci inauguration ñaari fan ci weeru mai euh, activité mécanicien yi ak professionnels yëngu ci wàllu nag automobile euh, nee na mbir moomee faaw ñu daal leen wutal beneen localisation boo xam ne ñoom mécaniciens yi dañ leen di tàggat ba pare ci wàllu nag seen métier boobu dafa plateforme boo xam ne ca la ñuy daal seen activité itam ñu fexe ba mu ci li nga xam ne nag mooy xëyu ndaw ñi ci lii di nag accident yi ñu daal di nemmeeku muy dellu siwaat nee na nañu renforcer sécurité euh, routière yi jaarale ko nag ci xayma application yi nga xam ne teg nañ ko ci mesures yi ñu fi jëloon gannaaw accident bu tar bi fi amoon ba ay fukki fukki nit daal di ci nag euh, ñàkk seen i bakken jël na xalimaam nag daal di euh, fal moom jiitu réew mi ki nga xam ne mooy Xaadim Diop def ko président bu setu CETUD Thierno Birahim aaw moom nag mooy directeur général ba Souleymane euh, Sané nga xam ne moo fi nekkoon nag secrétaire général euh, bu li nag ay AIBD moom moo daal di remplacer Amadou Abdoul si euh, ci bopp nag agence régulation des marchés di ARM ñu daal di desandi ba tey ci xibaar yi ak bés bi ñu jagleel wàllu presse àdduna wërngal këpp wala liberté de la presse eh, tey jii lañ ko doon nag eh, màggal moom jiitu réew mi sax na ci ministre bi ñu dénk wàllu communication mu daal di fayee maanaam bàyyi xel eh, dooleel dialogue social rawatina ci secteur boobule jàpp ne ne faaw ñu def ay effort indi ay coppite bu ko defee secteur boobu ñu mën appliquer code de la presse bu bees bi nga xam ne nag daal nañ koy rek teg ñu daal nag eh, mbirum Babacar Touré gannaaw bañ ko wooloo ci wàllu nag yoon tey jii mu jàkkaarloo waatoon ak attekaay bi eh, dañ ko placé contrôle nag eh, judiciaire juge du Cheikh moo daal di jël bile dogal moom nag dañ koo toppee wàllu joxe xibaar yoo xam ne nag wérul ak joxe yenn ci ay xibaar yi nga xam ne nag mënuñu koy daal di sukkandiw ñu jàpp ne mbir moomu nag nekk na ab danger ba tax nag ay avocat am nag di ci àddu jàpp nañ ne faaw ñu daal ko woon nag bàyyi ndax Euh, dafa amoon jafe-jafe gannaaw jafe-jafe wér-gu-yaram bi nga xam ne daal na koy am àq ak yelleef ñu daal di ciy desandi juróom-ñaar fukk ak juróomeelu session ordinaire bu commission africaine bi yëngu ci wàllu àq ak yelleefu askan wi euh, nee ñu Sénégal moom daal nañ koy rek cité ci dertu gannaaw ci li nga xam ne mooy àq ak yelleef rawatina ci taskatu xibaar yi gannaaw nag ñi nga xam ne jël nañ leen daal di tëj ñii ñi leen di woolu am ñoo xam ne sax dañ leen di faat bu ñu jëlee réew yi ci mel nag Cameroun muy situation àq ak yoo xam ne jàpp nañ eh, ci l'Afrique Soudan ci la bokk ak euh, RD Congo euh, commission bi nag di ñaawlu yooyu li xeeti doxalin di rappeler nag état yi ñu daal di fexe adhéré ci charte boobu nga xam ne atum 1945 tegoon nañ ko ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama xew-xewu 75e session ndaje boobu ñu ngi ko doon amal foofe ca euh, Karaba ca Gambie suñu naataango teewee na ko Marie Rosalie Ndiaye ak woy wi di bàkku union africaine la ñu ubbee e session ordinaire bu commission africaine des droits de l'homme et des peuples fii ci Gambie ñu dalal ci mbégte participants yi nga xam ne bawoon nañu ci ñaar fukki dëkk ak ñeent fi ci Afrique bés bi nga xam ne moo jiitu ci lël bu mag a mag bi nga xam ne dina woy ba ñetti ayu bés ñu ngi ko jagleel ab taxaw seetlu ci tolluwaayu ak ak fu doomu aadama ci dëkku Afrique yi ka jiite commission bi di Rémy Ngoy Lumbu di doomu Congo. ci république démocratique du Congo ca parti est ba daanaka ëpp na ñaar fukki at a ngi nii ay defkatu ñaawteef ñoo fa nekk di sonal witt askan wi di leen faat dem sax ba di sàkku ay jigéen naka noonu ay tuut tànk lu xew Soudan itam gis ngeen ko mu doon ab violence bi nga xamante ni nag jéggi na dayoo te ñi ko séq di ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ci l'armée bi ak ak yelleefu doomu aadama yi naxas na si bu baax a baax depuis fukki fan ak juróom ci weerum avril gannaaw ba nga xamante ni si la jàmmaarloo yi daal di tàmbalee ca Éthiopie itam violence yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa ci at yi ñu génn faat na fa ay nit yu bëri Sénégal Kenya ak Cameroun doon ay dëkk yoo xam ne dañu leen joxoñ baaraamu tuuma ci jaay doole. sunu kuréel gi nag fu mu nekk nii dafa jaaxle loolu par rapport ak répression yi nga xamante ni mën naa ci lim Sénégal ak Kenya mu doon ay réew yi nga xamante ni ci at yi ñu génn ne nekku nañu ay manifestations yi nga xamante ni dañ ko réprimer dans le sang ay journalistes yu nuy tëj ay activistes yu ñuy tëj ci yenn réew yi ñenn ñi dañuy dem ba di ñàkk seen bakkan su ma jëlee exemple bu Cameroun Swatini Mauritanie. commission africaine des droits de l'homme et des peuples mi nakarlu ak ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne dañu koy jalgati ci dëkk yu bëri ak njeexital yi nga xam ne ñu ngi koy am ci askanu réewu Afrique yi mu ngi fàttali njiitu réew yi ne ci atum 1945 la ñu xaatim ab contrat ngir aar ak ak yelleefu doomu aadama ca Nations Unies bañ ca jógee ci atum 1986 ca Union africaine ñu feddali lu ni mel ba tax mu leen di woo ñu gën ko def seen yitte. ci jamono yi ñu toll Sud FM fii ci Banjul Marie Rosalie Ndiaye. Euh, Marie Rosalie ñu desandeek moom ndax commission africaine bi yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñoom nag ne ñu ngi leen di informer saa su ne ci li xew euh, ci Sénégal ñu jàpp ne nag amul lenn lu ci daal di bette bu ñu sukkandikoo ci waa rajo yi nga xam ne teewee nañu ndaje boobu ca diwaanu Banjul deltu gannaaw daal la gis ci wàllu démocratie ak àq ak yelleefu doomu aadama fii ci mim réew secrétaire général bu rajo di Sadikh Niass ba tey ak Marie Rosalie wax euh, boo gisee ñun euh, même Sénégal bu ñuy def suñu ay déclaration wax nañu ne euh, dafa am recul bu ñuy wax recul boo xam ne ni ci wàllu respecter ak ak yelleefu doomu aadama si si réew bi ak li ñuy wax liberté yi nga xam ne dañ leen di faral di di gàllankoor ah liberté manifestation yi interdiction des manifestations répression violente yi nga xam ne gis nañu ko muy indi sax des fois ay nit yi si ñàkk seen bakkan ñuy jàpp ay nit di tëj euh, loolu yëpp am na Sénégal loolu dañ koy ñaawlu euh, loo xam ne la dañ ci war a liggéey def si ay recommandations te boo gisee président bi wax ko c'est parce que effectivement Sénégal am na rapport bu mu war a def pour wax lan la def ci ay jéego ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama te question yooyu moom war na ma ne comme moom wax na ko déjà ci ouverture bi dinañ ko poser Sénégal bu ñëwee ñoom tamit ñu wax Euh, défendre seen euh, seen pratique lu tax ñu ñu nekk ci situation boobu mais ñun en tant que organisation lu ñuy ñaawlu la te ñi ngi ñaan effectivement ñu liggéey ci ànd si ak ñi si war liggéey ba nga xam ne àq ak yelleefu doomu aadama dinañ ko mën a ñoŋal si suñu réew. Euh, coordination association de presse kuréel gi ñuy wax euh, CAP tey jii bés bi ñuy jagleel wàllu liberté presse daal nay amal ab ndaje bu yaatu euh, nga xam ne lañ doon waxtaanee sax mooy wàllu liberté yooyu ñuy faral nag di wàññi ci presse bi ni ñuy def ba mu mën a rek jur la ñuy wax équilibre te mooy rek diggu doomu sécurité bi itam daal di ci aju sécurité national réew mi na muy daal di nag doxee tegu cib kaaraange waaye itam bàyyi presse boo xam ne dafay liggéey liggéeyu moom boppam waxtaane nag ba ci droit à l'information sañ-sañu rek jot ci xibaar ah, panel boobu nag ñu ay kàngam yu mag ci wàllu tasam xabaar ñoo ko daal di dellu ah, dellusiwaat nañu ci jëflante yu tàng yi faral di am diggante way tax der ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi yu bëri ci xeetu ah, mbir yooyu nga xam ne bañ ko jàngatee mën na wàññi liberté taskatu xibaar bi leeral yeeg Abdoulaye Diop naka lees def ba boole tere yu bëri ñuy tere jëm ci wàllum yoon ak liggéey bi jëm ci liberté de la presse laaj boobee nag ñu laaj ko ci waxtoom ci jamono yoo xamante ni taskatu xibaar yu bëri ñi ngi am ay jafe-jafe ak yoon waaye docteur Sélé Seck di jàngalekat jàpp ni àttekat bi moo mën a tontu ci li ni mel. Bruno Dandalul moom mi ngi loon artu ci ba ñuy waxtaan ci chambre député eh, yu nekk ca France ne ne lu jëm ci wàllum liberté de la presse lépp ci loxoy juge bi la nekk ndax loi dafa sori lool am solo ndax dafa yaatu li nekk ci loi ba tax na muy bàyyi juge bi mu mën a arbitrer ba tax na muy bàyyi juge bi mu mën a daal di àtte. taskatu xibaar bi di Matar la moom nee na jëfee ak ak yelleef yu ci mel ni liberté de la presse loole itamit mën naa jaar ci ci këru taskatu xibaar yu am doole. faw ñu am ay këru taskatu xibaar yu am doole yu wóor mën a def loo xamante ni lu mucc ayib la ndax li ñuy def jamono ji est-ce na qualité ndaw yi ñu leen jël est-ce que gunge bi war ñu ko ci daal di def su fekkee environnement bi nag euh, bëri na ñoo xamante ni li ñuy def bokkul dara ak ñun professionnel yi day indi jafe-jafe. colonel Wardini moom jiite woon fi DIRPA jàpp ni faw rek ñu daal di jiital lii di crédibilité ngir moytandiku bu baax jafe yi am diggante nguur ak taskatu xibaar yi. yéen ndaw taskatu xibaar foog ngeen xam ne lépp ci crédibilité la faw ngeen di am preuve ci li nga xamante ni moom ngeen di wax. dem caytu bu baax xibaar bi su ko defee dinañ moytandiku dugg ci liñ lay tuumal ay diffamation loolu du leen jox cër te du leen yokk dara. valorise pas ça ban équilibre diggante sécurité nationale ak ak ak yelleefu jotub xibaar loole di thème bi nga xamant mooy thème mu waxtaan bi bi coordination association presse di Cap daal di amal ngir daal di màggal bëccëg bi ñu jagleel liberté de la presse. Abdoulaye Diop daal di koy jaajëfal ci la ñuy daal di nag wax ci ñaari nit ñu daal di ñàkk seen i bakken ci euh, taax bi nga xam ne dafa daal di nag màbb ab kër ca Parcelles Assainies unité 15 ministre délégué auprès du ministre de l' intérieur daal di ànd ak délégation am dem fa ci santaane mag njiitu réew mi jàpp nañ ne bâtiment yi nga xam ne yëpp jamono ji daal njort nañ ne daanu mën na leen ca fekkee identifier nañ ko liggéey boobu ñu ngi koy daal di def ngir protection sociale kàddu yi Biram Fay ñu déglu ko ak El Hadji Moussa président de la république monsieur Macky Sall moo ñu fi yebal daar daar gannaaw bi ñu nekkee ci ndaje bu jëwriñ yi bi mu yëgee xew-xew bi am fii ci Parcelles Assainies unité 15 ci la ma woo ne ma naa arrêté sama participation ci conseil des ministres te ma ñëw fii directement indi taxawu état bi indi jàppale état bi indi ko famille Kama ma leen di fàttali itam euh, nguur gi liggéey na ba pare ci stratégie nationale de protection civile liggéey nañ ci ba pare dinañ ko présenter conseil interministériel ci lu gaaw ci diir bu gàtt nañ ko présenter itam euh, conseil présidentiel la aussi conseil des ministres ñu war a jël dogal yu mucc yu am solo ngir mun a dàkkal lu mel ma leen di fàttali itam euh, lim nañ en tout cas bâtiment yi nga xam ne yëpp dañuy menacer ruine ci njiitu ci réew mi ba mu daj liggéey bu am solo boobu ñu ngi ko def ak administration territorial préfet yeeg gouverneur yi ci gox yi ñooñu ci jàppale ba tey jii may wax ak yéen xam nañ exactement ci réew bi ñaata batiment lañ fi war a daaneel loolu aussi am nañ ci liggéey bu am solo bu ñu def ba pare leneen li ma woon wax mooy rafetlu teewaayu état ñëw ngir jàppale famille Camara taxawaa Parcelles Assainies li tax ma wax ko bi ñu ko yëgee automatiquement la départ bi ma yegsee fekk naa fi préfet bu gox mi ngi fi taxaw mu ngi nii sama wet fekk naa fi sous préfet gox bi itam fekk naa fi waa police ci lim gu mot sëkk fekk fi waa pompier fekk fi itam waa sami maire bi itam mi ngi fi taxawaayam rafet na ñu ngi koy rafet donc mun nañ ne ñëpp ñi ci waroon jàpp nañ ci ci daar daar suivi bi nga xam ne aussi état war na ko indi incha allah bu soobee yàlla état dina ko andi ba mu moom des ministres bari na li président di wax ci wàllu protection civile ci yaatal waaye ci tënk ci batiment yi nga xam ne war nañ xoolaat seen taxawaay te ci bari exemple muy gën di faral di jël Parcelles Assainies bokk na ci fu mel ni Médina fu mel ni Gueule Tapée nga xam ay batiment yàgg la fii dafa tiim géej gi teg ci te fer bi ñu doon utiliser muy fer 6 bi ak fer 8 bi mun naa ne fer bu bu bu jamono weesul soññ nañu en tout cas ci ñu baral liggéey bi fukk ak juróom-ñeenti sénégalais ngi nii dañoo daal di bloqué wu ci barab bi nga xam ne fala la tension bi amee ca bët gànnaaru Burkina Faso ak bu nigeria ñoom ay chauffeur ak i apprenti camion yooyu jihadiste yi nee ñu ñoo leen tekk loxo daal di lakk seen camion ba noppi ak seen i marchandise jamono ji nag la ñu bëgg mooy nguur gi daal leen dimbali ngir ñu daal di dellu si nag tax seen naataango yi nga xam ne ñoo ne ci Sénégal sànq ci ngoon jàkkaarloo nañu ak taskatu xibaar yi ca Kër Massar Moussa Diop di président GIE ressortissant ak commerçant yu sous région bi moo ci indi ay leeral ñu déglu ko ak El Hadji dañoo am ay euh, jafe-jafe si ay camions yu ñu chargé woon ci yu jógee ci Nigéria ak Niger jëm si woon Sénégal ñu ñëw ba zone Burkina bi ay jihadistes attaqué leen foofu taal camions yi chauffeurs yi ñu dugal leen si àll bi zone de danger lañ nekk yoo xamante pour ñu génn fa. il faut état du Sénégal jàpp ci ak euh, état Burkina bi dañoo taal camion yëpp te ñu ngi chargé woon marchandise euh, de des centaines de millions ak camions yi tamit valeur centaine de millions la taal nañu yëpp xam nañ situation bi ñu nekk parce que ñu ngi leen di jot mais situation zone de danger lañ nekk fi ñu nekk pour ñu génn fa depuis samedi ñu fa ba léegi mais ba léegi génn ambassadeur Sénégal bi jot nañ ko moom tamit vraiment il fait tous ses ñu jóge foofu non demandé wuñu leen dara moom loolu jóg leen fii wala ñu ñoom ñu daw dugg ci àll bi dem ci benn dëkk di ils sont nombre de neuf personnes chauffeurs et apprentis dañoo nekk ci dëkk boo xam mënuñoo ñëw parce que foofu zone de danger la kenn mënu faa dugg mais kenn téyewu leen moom mais zone bi ñu nekk mënuñu faa jël seen bopp bu ñu taal woon oto yi zone boobu kenn du fa dugg pour génne kenn parce que jihadistes yi ñoo ko occupé li ñu bëgg mooy état du Sénégal jàppale ñu suñu doom yooyu ñibbisi en même temps suñu mbokki transporteurs yi ak commerçants yi seen marchandise ñu leen mën a jàpp leen jàpp leen parce que ñoo ñëpp presque ay prêt banque lañ defoon jënd ci camions yi jënd ci seen marché bi ci liggéey xayma nañ parce que ils ont les camions sont au nombre de sept commerçants yi tamit sept la woon ki nga xamante ne moo ci gën a néew marchandise bu mu chargé woon c'est à 28 millions 800 ki ci ëppale 61 millions 160 mille euh, ñu daal di nag euh, dellu siwaat nag euh, ci yeneen jafe-jafe yi itam coowal euh, suuf ndax sagara ngay xeeñ foofee nga xam nag mooy ci askanu Colobane Coobaan di daal di dëkk mu nga ca Morolan ak ña nga xam ne ñoo fare ca Fandène la ko waral mooy coowal suuf bu war a toll ci juróom fukk ak benn ci ay hectares ay mairie bu Fandène bëgg cee teg loxo ña fare ca village yu Colobane Coobaan boobu nag ñoo daal di lànk li ni mel jàpp ne ci seen suuf euh, foofa ca Morolan la daal di bokk tey ji ci ngoon daje nañ ci taskatu xibaar yi Morolan Babacar Sow. coowal suuf jibati ci diggante commune bu Morolan ci département bu Tivaouane ak bu Fandène nekk ci diwaanu Thiès askan wi nekk ci dëkkub Colobane Combaan nekk ca Morolan mer ba fut ni du ci dal tey du ci dal ëllëg jaraafu dëkkub Fandène teg loxo seenub suuf suñ sukkandikoo ci li ñu ñuy yàbbi ñoom ñooñee ànd ak seen njaboot ci lim bu takku dem ca bërëb ba nee nañu daal jaraafu dëkkub Fandène daf leen a bëgg a noot di loo xam ne lii duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Mame Mbaye Combaan yore kàddu ko askan wi di dellu soit ci ànd naka la mbir mi tëddee nakar moo tax ñu ñëw parce ñun dañoo moom suñu tool ay doomi aadama ñëw di jéem a néewal doole ñun lu ñu moom ni amul luñ si ragal lu tollu tarafataay nun ñun duñ si daw dara ñun suñu ñëwaayu tey bi yëpp boo leen xoolee kanam yi ngeen xam ne kanam yi neexul suñu suuf si mairie Morala moo ñu dox délibération depuis 2007 te fu mu nekk ni ay nit ñëw nañ tey ñu bëgg a accompagner suuf si mooy maire Fandène Augustin Tine moo ñu bëgg a néewal doole ci lu ñu moom nii ñun séeréel amul lu ñuy ragal si lii wallahi azim bare nañ ne pour lépp suuf si dara du fi am tant que jàmm amul doomu aadama ko ëpp doole nga won ko ko yàlla xam na ne àddina ñun fan lañ jëm ñun suñu teer bii la ñu yaakaar ñun nekk amul lu ñu siy daw lu toll tarafata ay ni di coowal suuf loo xam ne lii lu toll ci juróom fukki hectare ak benn la suñ sukkandikoo ci borom dëkkub kolobaan combaan mbay mbeng ni daal ñi ngi ñaan jiitu réew mu atte te sax ñoom bañu ñu toog waxtaan juróom fukki hectare ak benn ma ko ñu mel ni musul musul kon fekk ñu bari fi juddu wuñu suuf nag ñaar rek samam nekkoon fi mu dem sa baay nekk fi samam nekk sa jabar nekk wala sa sa doo sa sa suuf noonu lay doxee bu dee ci man de congrès bi mooy ñi moom suuf si ak ñi moom tool te doon suturloo ñu toog ñu waxtaan bu juboo bu ñu déggoo liggéey bi door a continuer mu gën a neex loolu la ci xam di fàttali def nañ suñu kémtu lay kàttan ngir jokkoo kilifa yi nga ko ndogali ci mairie den waaye day mujj ta antu tii Fawaan Babacar Sow doon ci jokkoo ko yéen fii ci Colobane Thiombane pour Sud FM Babacar Sow daal di koy jaajëfal ñu wax nag ci beneen askan ya fare ca commune bu Kanel euh, ñoom nag ne ñu nangu ñu privatisation bi nga xam ne seen forage nguur gi daf leen ko defal lank nañu coppite yooyu ñu indi ci yor ni ndox mi kenn ca joxar bi baaraam nag mooy Senelec jàpp nañ ne mooy responsable yu jafe-jafe yooyu ñu daal di am rawatina facture yu métti yi nga xam ne nag dañ koy fay saa su ne Matam Abdourahmane Diène. Euh, SDER moom la ñu dénk ndox mi ca dëkk bii di Kanel waaye nag ñenn ci askan yu fay yeewoo jug nañu takk seen sagar yu xonk ngir bañ ñu fokkati forage bi ci seen ñu gën ko xamee ci Nero moom la ñu dénkoon seen i kàddu dafa am lu ñaaw lu nit ñi seen fii ci Kanel mooy lan dafa am ñu ñëw fii bëgg nangul lu ñu yor dañ fi yoroon suñu forage di ci dawal yërmande ñu amay xat-xat yu ndaw ñu ne dañuy joxe suñu forage bi état bi jox ko SDR te ñëpp xamoon nañ SDR amoon na yëngu yu fi amoon ba président Macky Sall nee nañ taxawal wax wax ji ba pare ñuy régler ñoom ñëw nañ sans consentement nit ñi signé ay contrat ñu laaj leen waxuñ bëgg nañ waxuñ bañ nañ waaye nañu woon contrat bi ba fi nekk ni mënuñu woon contrat bi indil nañ ñu SDR ànduñ ci ñoom ñaxtukat yi nee nañ boo gisee doxalinu forage bi daal di soxee dafa fekk ne Sénélec moo deful liggéeyam ni mu waree Sénélec ci ay xayma lay indee facture xayma yooyu nag moo ñu lor ak bépp service boo xam ne ci état Sénégal ñu ci bëri duñ fay ndox soo leen boolee rek fay na borom Sénélec ba état moom moom Sénélec Sénélec état moo ko moom nañ xool lañ li jëntee mais ñun dañoo wuute ak yeneen dëkk yi ñu amul problème ndox yeneen dëkk yi dañu am problème napp ñu problème d'organisation lañ mooy lam nañu tàggat suñuy ndaw nañu fay suñu bor ñuy waxee Sénélec nañu fay suñu bor ñoom tamit nañu état bi fay suñu bor ñu mën a fay mu mel ni waa Kanel bëgguñu benn yoon nguur gi daal di fokkati forage bi ci seen loxo ndaxte seen moodu moodu daal lañ jël fanweeri million daal di koy teg ci table bi ngir ñu daal di gën a mën a doxal forage bi le teewul ne ñoom askan wi danañ génne niki ajjuma ci mbedd yi ngir daal di ñaxtu. immigré yi commencé woon nañu am solution mooy lan indil ñu ay solaire une valeur de trente millions ci nit ñi ficelé nañ ko ba pare waaye gars yi ñëw xam ne dañoo société bu daanoon ba pare ñu bugg ko yëkkati ci ndodd waa Kanel waa Kanel nee nañ nanguñ tey nanguñ ëllëg alors incha allahu ajjuma ñun ñëpp ñu ngi leen invité fii ci Kanel dañuy def doxu njàqu pour ndox mi ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg ñoo lànk bañ ko joxe. mu nekkoon Abdourahmane Diène fi ci Matam pour Sud FM Abdourahmane ñu daal di nag wax euh, ci pré forum euh, FAMES noonu lañ ko tuddee euh, fexe ba jigéen yi gën a moom seeni nag bopp ci wàllu sax suuf yooyu ak politique publique yi ñuy daal di nag doxal moo nekkoon te mu forum FAMES boobu lañ ca bëgg nag mooy fexe ba wut ay bërëb yoo xam ne yu yaatu lay doon ñu mën a rek waxtaanee ji jox leen la ci wàllu xam-xam bi ñuy amalee nag liggéey boobu waaye itam dajale lu bëri ci wàllu koppar ngir jox leen ñu daal di liggéey ci wàllu transformation. innovation loolu nag dina leen indi lu bari ci koom-koom ak ci wàllu jàppalante seeni i biir ñoom jigéen yi nee ñu itam dina mën a tax acteurs yu bëri euh, mën a comprendre enjeu yi nga xam ne nag am na ci wàllu boobu leeral yeeg Ismaïla Marcel Koli. ñetteel journée bu ñu jagleel jigéen yi maanaam bu ñu woowee préforum femme mooy weccante ay xalaat ci jafe-jafe yu jigéen yi di jànkonteel ku ñu xamal lu ñu mel mooy Kër Bordeaux bu ñuy woowee Philippe waaye président bu G7. Persuadé nous permettra d'échanger sur les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes dans leur volonté d'entreprendre. kii di Barthélémy Dias jàpp ne économie sociale ak solidaire dina tax bëndool bi wàññeeku waaye it ñu yokk xëy mi ci ndaw ñi waaye ci jigéen ñi. de contribuer à la création d'emplois durables. à la la économie sociale ak solidaire mun na contribuer ci am xëy wala wàññi ndóol mi mun na doon it benn jumtukaay bu mun na tijji ay bunt yu bëri ci Afrique waaye ci Europe pour Madame Samba bi ñëw teewal ministre de l'économie sociale et solidaire Victorine Dey ñëwaat ci li tax ñu taamu Sénégal pour mu dalal bi le sixième forum mondial de l' économie sociale et solidaire. dañuy rafetlu bu baax ak eh, kontaan di am mbégte muy fierté Sénégal tey jii ñuy recevoir comme le sixième forum mondial de l' économie sociale et solidaire mu nekk guleet nag ci Afrique li ko waral mooy place bi nga xamante ne Sénégal am na ko taxawaay économie sociale et solidaire ni ñu ko fësalee ni ñu ko mandargalee su suñu réew wante tamit taxawaay bi nga xamante ne Sénégal am na ko au niveau international participation ci travaux résolution de Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire loolu yëpp moo favoriser tey jii Sénégal taxaw accueillir forum bi muy suñu fierté muy fierté président de la République du Sénégal muy fierté madame le ministre Victorine Dey mi nga xamante ne tey jii moo nekk à la tête du ministère de la microfinance et de l'économie sociale. préforum femme nag doon na benn moment de réflexion pour ñu mën a indi saafara ci jafe-jafe yu jigéen yi ji jànkonteel. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi asan daf ñuy daal di nag euh, siwaat ci li nga xam ne mooy euh, ndaje bi taskatu xibaar yi daal di amal kuréel googu di nag euh, CAP daal di dellu siwaat ci li nga xam ne mooy classement bi Reporters sans frontières daal di nag def Sénégal dellu ci ginnaaw Abibou Mbaye bu Synpics waxtaan na ci ak Abdoulaye Diop. muy jamono bi nga xamante ni bii ci àdduna bi yëpp ñu ngi màggal li journée internationale liberté de la presse. am na journaliste bu Sénégal boo xamante ni bii mi ngi ci kaso bi muy Pape Xon Ndiaye bu groupe Walfadjri am na ñeneen ñaar ñoo xamante ni bii ñu ngi ci contrôle judiciaire muy Babacar Touré bu site d'information Kéwlu ak Pape Alé Niang bu site Dakar Matin donte am na ay artu yoo xamante ni bii mi ngi jóge fu nekk ci association yi ci société civile bi ak ci ay kilifa yu bëree bëri teewul ki nga xamante ni bii moo di journaliste bu Walfadjri boobu di chroniqueur ba léegi ñu ngi ko téye ci kaso bi ki nga xamante ni bii moo di Babacar Touré ñu convoqué ko ci division des investigations criminelles daal di koy teg li ñuy wax contrôle judiciaire muy loo xamante ni bii li ñu koy tuumaal mooy ni dafa sos ak i tamit dafa jël dunduk jàmbur xëy na euh, mettre ko en danger ak tamit Euh, joxe ay xibaar yoo xamante ni bi dafa wérul looloo waral ñu defal ko li ñuy wax liberté provisoire bàyyi nekk ndiku laata Babacar Touré ak ki nga xam ne moo di Pape Ndiaye ñu ngi fàttali Pape Alé Niang mi nga xamante ni moom mooy directeur bu dakaar Matin jàppoon nañ ko ci diirub ñaari weer yóbbu ko ci prison bu Sébikotane muy lu am lu doy waar loo xamante ni bii ay jamono presse bi dund na ko muy lu ñu naqari woon lool. loolu lépp nag doon ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy seetlu ba moo waral CAP di coordination des associations de presse di wax yëkkati baatam ci kaw ngir li nga xamante ni bii mooy ñu libéré kii di Pape Ndiaye mii suñu confrère ak tamit arrêté dakkal lépp loo xamante ni dafa di ay topp yu ñuy topp kii di Babacar Touré ak Pape Alé ñu ngi woo tamit kilifay réew mi ngir ñu fexe sàmm àq ak yelleef waaye tamit jëmm yi nga xamante ni bii ay professionnels des médias lañ muy képp koo xamante ni taskatu xibaar nga wala nga yëngu ci wàllu média ñu sàmm la ba nga euh, ba sa jëmm mën a ñoŋ. ñu ngi tamit exiger lépp loo xamante ni bi ab texte la bu ñu war a xaatim mu jëm ci suñu wàllu métier mii ñu ngi wéy di réclamer ngir ñu appliquer bépp texte boo xamante ni bi rawatina li ñuy wax la nouvelle convention collective. bi sart képp koo xamante ni bii ab taskatu xibaar nga ñu ngi jàpp nag ni lépp loo xamante ni war nañ koo finaliser mu jëm ci wàllu loi rawatina loi bi nga xamante ni bii bépp journaliste mën naa dem jot ay information fu mu ko soxlaa muy li ñuy wax accès à l'information ñu fexe ba lool tamit ñu fexe ba mu ñu xaatim ko voté ko ci lu mu gën a gaaw ñu ngi woo képp koo xamante ni bii professionnel des médias nga journaliste nga ak loo ci foo ci mën di féete moo xam caméraman wala loo mënti doon di technicien ngir ñu gaaw euh, finaliser li nga xamante ni bii mooy suñu liggéey bi ñu tàmbali ci li jëm ci wàllu assise nationale de la presse lii moom la waa CAP di woo képp koo xamante ni bii muy góor di jigéen di yëngu ci tasum xibaar ngir ñëpp ànd nekk benn ngir li nga xamante ni bii mooy suñu àq ak suñu yelleef ñu mën a ànd xeex ba am ci ndam ba am ci ndam loo xamante ni bii suñu métier mii di tasum xibaar dina jëm ca kanam